asalaamaaleykum man la Cheikh Mbacke Thiam ñu gën ko xam ci Cheikh dàll Cheikh dàll bi nag li ko indi mooy maanaam liggéey bi may def euh, liggéey bi may def ku may jox sama numéro rek ñi ko defal Cheikh Mbacke Thiam mu ni ma léegi bàyyi ma def Cheikh Dall rek. waaw man ay. ay basket damay defar ay montante damay defar raade waaw parce que tamit man jàngoon naa métier jàngu daal jigéen moom laa jàngoon sax waaw sama patron bi naan Xaadim Thiam maa ngi koy waale euh, moom moo ma jàngal métier daal jigéen mais xam nga daal jigéen moom soo ko mënee lu bari après du la të quoi waaw bi ma demee ba ay côté 2013 am sam benn tons boo xam ne dafa nekkoon Medina quoi ba mu fa nekkee mu feebar jogoon si la xam naa ñu bari nañ ko xam yenn mag yi mu xawoon feebar mu woo ma ni ma pour mu ñëw jàppale ko foofu waa ba ma ko demee pour jàppale foofu benn jour samedi ñu toog amuñu liggéey ma waroon jënd ay dàll dàll bag. Colobane. ma jël ko si yàgg ma ne ah man xaalis bi ma yor te ma cee defar daal man li tax ñun defarkat daal yi duñ defaral suñu bopp inspiration fa la ma dikkee quoi ma dem jënd benn der bu marron xaw beige defar ko ba ma ko defaree ba ma ko defaree si ngoon gi samedi gi ba ma ko solee di dox ma sentir ni ñi ñee ngi xool sama tànk man ma jàpp ni sax li defar dafa baaxul tax ñu may xoolee après ba ma ko solee ba dem kër ga xëy suba solaat ko sam benn grand ñëw ni ma mais booy a xam ne daal yi nga sol mu ni ko waa ah, xam naa ko kay maa ko defar mu ni ma jaay ma ko waxoo dëgg jaay ma ko man nag ma jàpp ni dafa sax ba ma ko prix bu cher ko waaw mu ni waa simil mu ma jaay ko si saa si dem jënd carax xëy dem ba ma demee ma defaraat beneen ba ma defaraatee beneen wàccaat xëyaat si deux jours bi après ma jaayaat ko sam benn copain jënd ko ci man mu ni ah lii dafa mel ni gars yi bëgg nañ ko xaaral ma jéem a concentré wu nag. boobu 2013 premier daal 2013 daa ko defar. boobu tissu yi commencé guma ko woon boobu ay cuir yu marron laa leen defar ay marron tabac. ay noir affaire yooyu yooyu laa doon defar quoi. waa tissu bi parce que man tamit dama doon defar ay dàll su ma defaree ay dàll yoo xam ne euh, ay ay couleur comme temps yooyu gars yi maa ngi liggéeyal artistes yi mooy liggéey ay couleur defar ay rose ay ay jaune ay kii gars yi di ko jënd artistes yi ak tëggkat yi xam nga ma jékk ba si àgg am sam benn grand. sama benn xarit boo xam ni mbaay moo moom moo doon tëggal ñoom Aïda Samb ak yooyu ma defaral ko dàll ba mu ko defaree dàll mu sol ko affaire bi nice après mu am ñu ma booleel mais avant boobu tamit boobu maa doon liggéeyal boobu si Sidi ñoo dëkkoon Sidi Diop ma koy defaral ay dàll mu doon ànd ak ñoom Pape Bara ñoom Pape ay laat waaw ñoom muy ànd ak ñoom ñuy ànd di ñëw kër ga ma leen di defaral dàll temps yi moo ngi joué mariage yi xam nga comme que maa ngi leen di defaral tamit ma gis ni ñoom tamit suñu demee gars di leen ko laaj xam nga tout le temps ñuy ñuy ñëw après may commencé xam artistes yi ba jégg ba si yàgg après si laa commencé liggéeyal Thiat Seck jóge ci Thiat Seck après di liggéeyal kii euh, liggéeyal Papa Ndiaye coppet ma jégg ba si yàgg Wally di def zénith bi bi bi mu doon def Sidi Samb war fa dem G Sidi Samb ni ma ñu ni ma benn manager mi ni ma dañoo bëgg dàll boo xam ne suñ ko su nekkee kaw seen day day day dàll bi day génn daal bu verte la woon quoi waaw ma ne ko ah ma xool yére bi ma gis yére bi comme genre vert brillant ma ni ah lii nii am naa benn benn matière boo xam ni genre genre liggéey payat la day briller guddi gi quoi ma ni xaaral ma defar loolu ma liggéeyal ko ci chaussure de ville mu yóbbu ko nag mais jour boobu maa ngi seetaan télé jour boobu laay njëkk a gis nag sama daal ñu wane ko nii télé ma toog di seetaan ñu ni si di sàmb mooy yéeg mais lépp maa ngi naan est sol est sama daal la sol ne cëral ba dugg sama xarit yi ma nekkoon sax ñëpp dañoo yuuxu ndax kontaan yu mel ni xam nga moom tamit yàlla def mu sol dàll yi caméra bi sax instant di jël dàll bi dàll yi di def nii ci kaw bi xam nga loolu tamit gën ma am ci yeneen li ma yóbbu après si laa jugal liggéeyal waa ji sekk boobu maa ko fekk studio ki Ousmane fay fii ma fekk ko defal ko dàll mu xool dàll bi moom tam mu ma mais Cheikh dàll bi bëgg naa ci bëgg naa ci nga defal ma ci couleur bépp couleur yëpp boo ci gis ma liggéey këleer yi yóbbul ko këram moom tam ndeysaan mu jox ma xaalis bu bari xam ci yooyu laay demee ma xam ni kon li may def nii am na am na am na lu ci nekk waaw parce que yenn nit ñi suñ demee bay sol sa dal rek kon yow lépp loo def war nga gën a mën a lu xam ni war na mën a yegg fenn fii quoi. waaw tisi bi nag lan moo tax après ma ma ma dugg si tisi yi parce que boobu dem naa ba benn instant ma liggéey daal yooyu yëpp sama daal ñu koy wane fépp après si laa toog. sam benn grand Abdallah moom mu ngi doon liggéey laam Fall mu jég ba si ak ni ma man Cheikh dal yi ma lan laa ci bëgg daal njaxas ma ne ko njaxas mu ñu ma njaxas après chaque ma ne ko waaw waaw waaw mu jég ba si ak man xaar ma defal ko njaxas rek ma defal ko njaxas nag far mu dem làmp euh, si télé ba moom magam bi Qatar la nekk day basket ñu naan ko Fall xanaa yow sa sa mag ji moo la indil daal yi ba ngay ñëw mu ne ko pourtant benn booy moo ko defar de Cheikh la tudd fii la ñu ko non loolu mënul nekk kon da nga koy invité fii si télé bi mu defar ko ñu xool mu invité ma foofu Lamp ma defar ko jour boobu daal bi génnul sax yóbbaale wu ma ko sax foofu lañ ko jëndee xam nga après si laa commencé dugg ma ni non sama liggéey nag kon fu mu international foog ma jël si africain yi ma koy defar ay dàll parce que comme que ñu yi ñoo ngi liggéey ay yenn couleurs yi ay blanc yooyu la liggéey xaaral ma jël ay yenn couleurs yi ma commencé ko defar dàll si laa commencé jël nag tissu africain yi ma jël ay bogolan pantissé vax yeeg xam nga yooyu commencé koo liggéey ma koy liggéey affaire bi di dem di dem di dem di dem ba wër daal. commencé defar léegi xaw na yàgg quoi parce que mais moom ferme bu ma ko commencé defar moom 2013 laa commencé. waaw mais tissu yi moom ay ay côté deux mille deux mille dix sept yooyu laa commencé daanaka. waaw tissu yi dama koy jënd damay ñëw fekk comme ay jeunes yu mel ni man yoo xam ne dañuy jaay ay vax mooy liggéey ak ñoom wala ay maire suñu yaay yoo xam tam dañuy liggéey ay vax wala paañ tissu yeeg affaire yooyu mooy liggéey ak ñoom su ma ñëwee jënd ci ñoom ñoom tamit dañuy sawaraat jëndaat waaw. waa ñaari machine laa yor masin finition machine yu finition laa yor euh, ak machine ñaw ñaari machine yooyu rek mais yeneen yi des yëpp loxo la. am naa fi équipe bu mu fi am ku ci mel ni Massar moo ngi fi Djili moo ngi fi Kaasa moo ngi fi Ousmane Pape Modou Sabina bari na ñu ci nekk di ci jàpp bu baax a baax a baax parce que ku nekk nag secteur bi bi nga nekkee quoi parce que am ñoo xam ne spécial ñooy jël commande yi mais am na ñoo xam ne tamit waaw yenn kii yu bari ñoo koy lijjanti quoi am naa tam sama manager boo xam ne yenn contrat yi moom moo koy lijjanti. ah képp ku ñëw bëgg liggéey ak man ak contrat moom ngay waxal. Mhm. waa entreprise lañ teg. waa nit ñi waa ñoo ngi koy bàyyi xel mais bëgg naa ñu gën ko bàyyi xel tamit sama liggéey gën a avancé tamit quoi waa ñoo ngi koy bàyyi xel bu bu baax a baax parce que yenn saay man ci liggéey bii laay tooge ba si ak ndeysaan nit di ma woo di ma ñaanal xam nga gis ma am ñoo xam dañ may bëgg xam nga am ñoo xam ne tey suñu ñëwee tànk defoonoo man ak vidéo duñu am jàmm te dañuy jógee Europe ñëw fii xam nga ma xam ni tamit sama liggéey tamit war na maa ngi maa ngi liggéey ko mais war naa gën a yokkaat li may def soo demee ba ay borom daraje ñëw tànk amul suñu amee ak yow photo rek bu rëy ci ñoom yëkkat seen xaalis di la ko may xam waxuma la commandé sax mais da nga leen wax prix nangam ñu yëkkati benn xaalis somme jox la nga xam ni kon ñii daanaka commandé wuñu kase mais pour jàppale waale la. waaw ñoo ngi koy consommé quoi. bëgg nañ dàll yi mais bëgg nañ tamit mu gën a yaatu parce que am na ñoo xam ni ñoo ngi gis tamit dàll mais xamuñu xamuñu ku koy defar bëgg nañ ko. parce que yenn nit woo ma ni ma saa waay ngi maa ngi lay wër maa ngi wër sa numéro mënu ma ko am ñii ni ma six mois maa ngi wër sa numéro mënu ma ko am nga xam ni kon bari na yi ñoo gis amee bari na ñoo xam ne maanaam numéro bi duñ ko mën a am. no place bi rek laa nekk quoi pour l'instant waaw mais nag maa ngi séntuwaat ay yeneen place yeneen place quoi na ma gars yi xaar waaw parce que ay am na ci benn projet bu ma nekk ay Thiès Mbour waaw yenn dëkk yu bari bëgg naa fa ibbi ibbi kii quoi. rek parce que yenn saa yi nga xëy suba defar lu mat ay sept paires yenn saa nga defar. dix paires yenn saa yi nga defar cinq paires sans dépend ci commande rek. waaw ah, parce que yenn saa yi tamit damay damay liggéey tamit kon commande bi su amul fii damay génne bagage yi dagg yenn affaires yi liggéey exposé si vitrine bi wala ma teg parce que am na ñoo xam ne bëgg a ñëw rek jënd en jënd li fi nekk rek ñu yóbbu dem jaayiwaat quoi am na ñoo xam ne dañ koy ñëw jënd dem jaayiwaat ko. waaw waaw ñu ngi sant yàlla bu baax te wax dëgg yàlla ñoo baax. koo xam ni tamit foog ma sant ko gërëm ko muy docteur Malick Diop waaw docteur Malick Diop moom moo ma yóbbu woon Dubaay te ba mu may yóbbu Dubaay maanaam xaw ma ko xawuma mais daf maa gis nii rek ci internet bi xam nga ni recherche ma ni mag fexe leen ba Cheikh mii ngeen indil ma ko pour ma yóbbu ko Dubaay ndax li muy def am na solo waaw jeunes yi mën nañu roy ci moom quoi wax dëgg yàlla loolu tam mu nekk lu rëy ci man trop docteur Malick maa ngi lay maa ngi lay gërëm di la sant xam nga di gis tamit di ma taxawoo ci sama liggéey bu baax a baax a baax a baax waaw parce que lii moom moom waaw dafa ma dafa rëy ci man trop quoi moo tax lii mënu woon ñàkk ma wax ko tamit ci émission bi quoi mais moom si jëmbu boppam maam day jàppale comme jeune yoo xam ne tey ñoo ngi ñoo ngi toog seen loxo maanaam yeggul fenn fi mu leen recherche pour xàmmee xam leen pour mën a indi leen pour jéem leen yóbbu ñu tukki pour seen liggéey mën a avancer quoi waaw moo tax liggéey bi muy def dafa am solo trop quoi. ma waaw maa ngi maa ngi leen di maa ngi lancé tamit képp koo xam ni tamit yaa ngi ci nguur gi di jàppale xam nga docteur Malick tam maa ngi lay wax nga gën a recherché waat booy yi am na bari na ñoo xam ni tamit wax dëgg yàlla ay ndaanaan lañ ci seen métier nga gën a recherché rek xam waaw parce que man moom wax dëgg yàlla dem bi ma fi dem yokk na sama liggéey ci lu bari quoi parce que amaat naa ci beneen expérience boo xam ni xam nga sama liggéey joxaat foofu joxaat na ma ko sama liggéey quoi. waaw di la ci woo ngeen gën a jàppaat ci affaire yi affaire yi gën a yaatuwaat quoi incha allah jaajëf